الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ci dars bu passé laaj ci wàllu mbellit eh, nag mbellit balaa nit di ko génne asaka foo asaka war ko mu nekk góor nekk jullit jaam du ko azakaal ku dul jullit du ko azakaal su fekkee mbooloo ko bokk dañu xool kenn ku nekk lam am ku am nisaab nga génne azaka ku amut lu mat nisaab doo génne dara comme mbooloo mu bokk bay suñ bokkee bay duñ xool tool bi déedéet dañuy xool kenn ku nekk lam am su matee nisaab mu génne asaka su matut nisaab du ci génne dara kon mbooloo mu bokk mbellit dañuy xool kenn ku nekk lim am comme mbooloo mu bokk mbay wala jur wala wuru sa xaalis koo xam ni cëram matul nisaab du génnee du génne dara ki am du mat nisaab rek mooy génne am na loo xam ni dafay niru mbellit waaye dañ koo génne ci mbellit mooy wurus wu sell yi nga xam ne raxu dara wurus bu sell wala xaalis bu set nga mbellit dafay aju wurus wu set wala xaalis boo xam ne dafa set kooku du yore atteeb mbell xumus ba ngay génne manam dañ koy xaj juróomi xaj benn xaj bi ñu yokk imaam bi bu dee ku mandu la bu dee imaam bi mandu ñu tasaare ko ci mbooloom jurit ñi yeneen ñeenti xumus yi it imaam a koy xool ñu ko yelloo mu jox leen ko yeneen ñeenti yi des moom wurus bu sell bi bokkut ak mbelli bu sellut bi buñ gisee suuf soo xam ne it am na mbellit muy wurus ak xaalis suuf soosu imaama ci atte xool nu mu koy doxalee mu doxalee ko moo xam dafay jël ñu ko liggéey wala dafa koy jox aw nit imaam daal muy atte ndax suuf yu mel noonu ñaareel dafay bëri coow fitna ku nekk naan maa ko gën a yelloo loolu waral dañ koy bàyyee imaam ki gis suuf soosu du si sañ soppandiku lu ko neexee déedéet lu mooy mu wax ko imaam imaam daldi ko ci may ndigal wala boog imaam xool nu ko doxle dégg nga eh, lu mooy nag mbell mi ñu fekk ko suuf soo xam ne dañoo xéwanoog seen boroom am ak ñoom jàmm su boobaa suuf soo mbellit moomu ñooñ xéwanoog xéeféer yooyu ñu xéwanoog am ak ñoom jàmm ñoo koy moom buñ fa nekkut ña leen war a doon waaye imaam moom du ko moom kon mbelit mu nekk fekk ci suuf dañ koy bàyyee imaam mu doxal ci lim ci war a doxal mu ngi war a jàng tey galag galag nag dafa am ñaari xaaj galag mooy lañuy laaj xéwéer yi ñu di ko joxe sak at am na loo xam ne ci xéwénoo lañ ko amee maanaam xeebeer yoo xam ne jekkoo guñ leen ñu far waxtaan ba juboo xéwénoo kenn du leen song ñu ba leen ñu nekk ci ron atteb lislaam nekk ci jàmm at mu nekk ñu joxe dara loolu garab googu ci xéwénoo lañ ko sant lañ ko sampee am na garab goo xam ni ci force lañ ko sampee mooy xeebeer buñ dem ba not ko bu ko defee mu nangoo joxe dara pour ñu bàyyi ko ci ron atteb lislaam kooku ci noteel lañ ko lañ ko saddee moom galag boobu ndax ñooñu not nañ leen ba pare galag ñu ngi ko yoonaan ci lislaam ci atam juróom-ñetteel ñi ne ci atam juróom-ñeenteel du dagg mukk lu may ba yonent yàlla Iisaa wàccee ba yonent yàlla Iisaa wàccee dootu nangooti galag gëm yàlla rek wala mu rey leen dafay dagan nag ñu sadd ko ci xeeweer yi waaye warut su fekkee buñ ko saddut dana lor jullit ñi maanaam buñ laajut galak su boobaa dafay war waaye bu fekkee du loree dafay dagan rek kan lañ war a jël galak googu ak luñ war a jël nu mu moom lay jàngale ne danañ ko jël moom galak watu xasu danañ jël aljijatu galak min rijaali ahli zimmati ci góoru ñooñ kóllëre al ahraari yay gor البالغين يوجد baax galak ci ñi lañ ko jël wala tuuxas duñ ko jël min nisaayim seen jigéen yi wa sibiyaanim ak seen xale yi wa abidihim ak seen jaam galak moo xam galak xéwénoo la wala galak ak forsu ci ñi lañ koy jël ñoo xam ne sart yi dajee nañ ci ñoom mooy góor kon duñ ko jël ci jigéen ak gor duñ ko jël kon ci jaam comme noonu ma ko waxee ak ku jot baax kon duñ ko jël ci xale ndax jotul baax am xel mel ni waxu ko duñ ko jël ci dof ko am xel ci lañ koy jël koo xam ne it mën nañ koo jàpp ci lañ koy jël maanaam buñ demee ci mën nañ koo jàpp ñëw def ko moomeel waaye xéeféer boo xam ne dañoo xamante moom kóllëre te kóllëre ga jeexul xam nga kenn mënu koo jàpp kooku duñ jël galak ci moom ndax yu bëri léeg-léeg ñu fasante ñoom kóllëre ci nekk ci jàmm ak salaam ku murtat kooku kenn du ko jàpp dégg nga murtat du tax ñu jàpp ko kooku it duñ jël galak ci moom dégg nga kon na nekk kuñ mën a jàpp galak it duñ ko jël ci koo xam ne julit moo ko goreel ci réewi lislaam koo xam ne ni jullit a ko goreel ci réewi lislaam si réewi jullit ñi koo kenn du jël ci moom galat bu dee xeebeer a ko goreel nag moom xeebeer la xeebeer goreel ko kenn du jël ci moom galak wala jullit a ko goreel sax waaye réew yi nga xam ne ni xeex a dox suñ diggante ak ñoom fa lañ ko gorelee soo bàyyi kii kon danañ jël si moom galak xeebeer bu gorelee xeebeer danañ jël si moom golag jullit bu xar gorelee xeebeer si réewi xeex ya réew yi nga xam ne ni ñooñu ñoo fa nekk xeex dox suñu diggante danañ jël si moom golag waaye bu fekkee jullit moo ko goreel ci réewu jullit ñi kooku kenn du jël si moom golag loolu sart la bu mu nekk koo xam ne jullitu ko goreel ci réewu jullit ñi beneen sart bi si topp mooy na nekk ku ko mën a joxe ko xamut golag wàcc na ko duñ ko forcé force nga jox ko nem amul ko na jaxasoog ñooñ diineem koo xam ne ni dana jaxasoo wut ak ñooñ diineem kenn du jël ci moom galak maanaam labbe boo xam ne nii ma nga beru ca palaasam di jaamu borom moom moom jaxasoo wut ak ñoom diineem sax kooku kenn du jël ci moom galak dégg nga kon yooyu mooy sart yi mooy nekk góor nekk góor jot baax am xel teñ man koo jàpp bu mu nekk koo xam ne ni jullit ko goreel ci réewu lislaam bu mu nekk koo xam ne mënu koo joxe na nekk koo xam ni mën naa jaxasoo mu jaxasoo nag ko diine kenn du ko jël ci jigéen kenn du ko jël ci jaam kenn du ko jël ci xale kenn du ko jël ci dof kenn du ko jël ci xeebeer boo xam ne dañoo fasanteeg moom kóllëre wala ku murta ndax ñooñu mënu leen jàpp kenn du ko jël ci koo xam ni jullit ko goree ci réewul islaam bu ko jullit gorlee ci réew yéeféeroon danañ ko jël ci moom kenn du ko jël ci ko amut kenn du ko jël ci koo xam ne ma nga beru di jaamu euh, jaamum jaxasuwut ak ñoom diine dégg ñooñu ñooñu ñu war a jël galak ci ñoom am na def ko tënk galak ki ko war a fas ak xeefeer mooy imaam imaam moo war fasante xéeféeri galak ne joxe leen nangam bu ko julit bu dul imaam fase ci lu ndigul imaam wérut waaye nag kenn sañu tu rey xéeféer boobu ñu fasanteeg kolere googu pour mu joxe galak dile ku dul imaam moo ne ko joxel galak xas jeex na kenn du ko rey kenn du ko rey kenn du ko jàpp dégg nga loolu dafay mel ni jiir bi may na ko garanti rek waaye galag boobu moom wérut kon imaam moo ko war a fas moom galag ku dul imaam su ko fasee ci lu dul ndigal imaam bu dee imaam moo ko si may baax bu dee imaam mayut ko ci ndigal nag baaxut waaye mm, xéeféer boobu kenn du ko rey kenn du ko kenn du ko jàpp lu dul rey ak jàpp nag mën nañ ko mën nañ koo def waaye kenn du ko rey kenn du ko kenn du ko jàpp buñ joxee galag ba pare mën nañoo sax fu ne ci réewu jullit yi waaye duñ sax ci jaziratul arab ci réewu arab yooyu maanaam Makka Medina ak Yaman duñ fa sax yu ñetti barab yi nag dégg nga mën nañ fa sax waaye ñetti barab yi duñ fa dëkk te duñ leen fa denc buñ dee muy Makka Medina ak Yaman dégg buñ dee ñu suul leen fa nag baax na waaye duñ leen sulli seen bàmmee yi dégg nga lu mooy mu dee ci mm, xaramu makk bi su boobaa moom foo ñu génn ko dire dañ koo suul ba pare waaye bu dul xaram ba buñ ko dencul ci xaram ba mm, su boobaa bu dee bañ suul ko ba pare ci benn ci barab yi daganut ga waaye nag kenn du ko sulli xam nga makk dafa am xaram ak ak ak ak xel buñ ko suuree ci xaram xaram ba moom foofu ñu sulli ko bu buñ ko suuree fu dul xaram ba nag moom kenn du ko sulli di la daganut kon ñoom buñ saddee garab ba pare nañ sori Makka ak Medina ak Yaman fu dul foofu mën nañ faa dëkk dégg nga watu xasu jël garab meneen majuus yi ci majuus yi majuus mooy ñu gëmu dara jaamuñ benn diine safaraak yooyu lañuy jaamu amuñ diine ñooñ dinañ jël galag ci ñoom wamin nasaara arab ak ci nasaraan arab yi arab yi nga xam ne ay nasaraan lañ xanaa ñoo jàpp ci diine Isa danañ jël galag ci ñoom ndax ñoom nasaraan wax na ci ñan lañ ko war a jël wax na kan moo ko war a fas léegi muy wax nu toll mu ne wal jijetu galag على أهل الذهب اثنين قروس أربعة دنانير نينتي دينار لا دينغا وعلى أهل الورق اثنين قارس أربعة درهم نينفك درهم لا galak bi mooy da ngay sa behavior bi ane bu nekk kenn ku nekk ci ñoom joxe ñeenti dinaar bu dee wurus ci lay joxe bu dee xaalis lay joxe mu joxe ñeent fukki dërëm dégg loolu lañ joxe loolu mooy li nga xam ne Omar radiyallahu anhu dogal na ko ci teew ak saxaaba yëpp te kenn wedduwul ko ci su fekkee ñooñu amuñ wurus xaalis ay jur rek lañ am ah hmm, soxna nee na daal li nga xam ne imaam waxtaan ak ñoom ba d'accord ca ñuy war koo joxe ci gëlëm wala ci nag wala ci gàtt loolu baax na dégg waaye lii ñu la wax ne nag moom lay joxe galak maanaam mooy ñeent dinaari wala ñeent fukki dërëm mooy koo xam ne dañoo xéwanoo ëppuñ ko mënaguñ ko defaguñ ko dañuy xéwanoo amaa koo xam ne dañ koo not ba pare ubbi seen réew ci force mu nekk réewam jullit xam ah, nga ñooñu mënatu ci dara kooku moom dégg nga euh, dégg Hmm. Hmm. maa ngi jëm koo xam ne dañ koo not laa bëgg a wax imaama ko not jullit ñaa ko not ubbi seen réew kooku dañuy sadd ci ñoom ñeenti ñeent fukki dinaar wala ñeenti ñeent fukki dërëm wala ñeenti dinaar amaa koo xam ne dañoo xéwanoo mën la wuñ ko dara ñu xéwanoo waxtaan ba juboo kooku moom la ñu waxtaan ba juboo loolu la ñu war a joxe kenn not nañ koo ba pare lii lay joxe ci galag ñeent fukki dërëm wala ñeenti dinaar amaa koo xam ne dañoo waxtaan ba juboo ñu war a joxe ga rek notaguñ leen kooku lañ sartalante ak imaam loolu rek lañ war a joxe ndax bu neexee imaam mu mu bañ d'accord xeex ak ñoom waaw waaye bu d'accord rek galak du xeexat ak ñoom léegi nag la imaam d'accord ak ñoom nu mën a toll loolu rek lañuy lañuy joxe su fekkee dañoo xéwanoo ne joxe leen galag rek waaye waxuñ nu mu war a toll galag ga nga xam ne moo war kañ not loolu lañuy joxe mooy ñeen fukki dërëm ak ñeent dinar kon kuñ not ba ubbi réew ma xeexam ñoom ba gañe leen buñ leen laaj galag pour ñu des fa ci jàmm ak salaam ci ron atteb lislaam nag du ñu leen neex ñooñu ñeen fukki dërëm la wala ñeenti dinaar bu dee xéwén woon nag lañ waxtaan ba jubóo rek loolu la dégg nga bu dee dañoo xewoonoo ci galak te tudduñ pire su boobaa nga def ko galak ga kañ forcé rek gañe ko mooy ñeent fukki dërëm wala ñeenti dinaar galak danañ ko jël ci mujj ak at mi comme azaka bu at mi dee rek ñu daal di ko joxe moog azaka benn la dégg imaam bu fasanteeg xever yooyu kóllëre googu ba sadd leen garak daf leen sant ñu mel melakaan boo xam ne danañ leen xàmmeek juriñ yi nga xam ne ku leen gis xam ne ñuy xéwéer lañ waaye bokkuñ ci juriñ yi dañ leen sant ñu bàyyi war fas ak mbërkëll ak teg yi fas yu am teg kon mbaam mbaam lañuy war mbaam yoo xam ne ni du du kii noonu duñ ko defar noonu seen tànk yi benn côté lañ koy wàcce pour ñu xàmmee leen duñ war mbaam sax war war normal seen tànk yi benn côté lañ koy wàccee bu doon tey nga ne nga ne ñu war loo leen jakarta yeeg yooyu waaye oto yi moom du leen may ñu di ko war ndeysaan dégg nga maanaam lislaam teraanga lépp moo ko moomoon ñoom jullit ñi ñoo sàggan rek ba tey xéeféeri di leen not waaye normalement lii moo waroon di dox waaw waaye léegi gis nga yàlla xam doy na kon dañ leen ni ñu war war waay yi gën a rafet ndax bañ ñu fitnaal nit ñi rek bañ yaakaar ne ñu ñu ngi ci dëgg fekk ci caaxaan rek lañuy ñuy dox bu ñuy doxit ci yoon bi ci pegg yoon la ñuy dox waaye duñ dox ci digg yoon yi waaw buñ dajeeg jullit ñi dañuy am am ak yar ak teggin ci kanam jullit ñi loolu yëpp imaam daf leen koy sant waaye nag benn jullit du leen lor. ndax ñoom bañ joxee galag rek ci lañ mucc <clears throat> dégg suñ defee loo xam ne nii warut aaye woon nañ leen ko imaam daf leen yar seet nu mu leen yaree rek moo xam mu dóor leen wala mu seet mu leen def ba duñ ko defati lu mooy ñu fecc seen kóllëre gi fecc seen kóllëre moo ñu xeex ak jullit ñi waa fecc nañ kóllëre gi jeex na wala boog ñu bañ a joxeeti galag wala ñu seet góor goo xam ne jullit lañ ñu forcé ko njaaroog moom loolu suñ ko defee buñ leen jàppee dañ leen rey lu ma ñu jébbalu suñ feccee kóllëre buñ leen jàppee dañ leen rey lu ma ñu jébbalu bu fecc kóllëre gi bokk na ci xeex jullit ñi ak bañ a joxe garag wala boog forcé jaam boo xam kii kon góor goo xam ne jullit lañ njaaroog moom dégg te bu forcé góor ak jullit njaaroog moom dana ko jox can doom ji ci diine yaay ji lay nekk maanaam jullit la. amaa bu forcé bu forcé góor goo xam ne julli la la wax mënoon koy rey dana ko jox cen doom ji julli lay doon bu forcé jaam boo xam ne nag julli la duñ ko rey dégg nga bu fekkee gorog jullit lañ jaaloo waaye gorog jullit bu moo ko nangu forcé wu ko loolu du fecci kóllëre ci Malik ibnu wax bu ne loolu fecc kóllëre fecc kóllëre moom bu amee rek rey ma stop lu may jébbalu waaye nag bu fee njaalo gi jigéen jàkk nangu loolu du fecci du fecci kóllëre dégg nga woyu xafafu danañ oyofal anil faqir ku ñàkk ku ñàkk danañ ko oyofalal num ci garab ga bu fekkee xamul dara dara moom kenn du ko laaj dara ndax bokk na sart yi ku ko man kon ku ñàkk bu dee mënu joxe ñeent fukki dërëm wala ñeenti dinaa dañ koy oyofalal lu man wayu xasu danañ jël galak mi man it tajara ci ku commerce min si ñoom ilaa ufuqin jëm gox wala boog min ufuqin jugee ci gox ilaa ufuqin jëm ci gox masru samani maa yabiunahu fukkeelu njëgu la ñuy jaay wax nañ galak buñ ko saddee ci xéwee moo xam ne leen not door leen sadd galak wala dañuy xéwanoo nu mu war a toll loolu wax nañ ko tey ñu ngi wax ñi nga xam ne dañuy commerce ci ñoom lan lañ war a jël ci ci ñoom ci galak foofu moom bokkut ak bi paase fii mboolem ñuy commerce moo xam góor la walla jigéen ndaw walla mag góor wala jaam fi moom dañ koy jël si ñoom ñëpp ñuy commerce ñëpp dégg kon bu dee ñuy commerce eh, moo xam góor la am jigéen la ndaw la am mag la góor la am jaam la dañuy jël galag gi ci ñoom. jàppal nag kii commerce euh, borom téere bi daf ko tënk lool ne dinañ jël on suuf sama ni maa yebee on fukki lu njëgu la di la nañ di la baagante nañ fii sanate ci at mi ay yoon euh, yoon wu nekk dinañ jël fukki lu njëgu la euh, jàppal ne kii commerce benn muy jëndee ci raison bi mu nekk. di jaaye ci beneen reson bu bokkut ak euh, raison waaye ci réewu jullit ñi la koy jaayee bu dee raison bi nekk fa lay di jaayee ci beneen reson bu bokkut reson ci réewu jullit ñi jamono bi muy jënd duñ jël ci moom dara ndax raison am la amma jamono bi muy jaay nag danañ jël ci moom fukkeelu njëgu lam jaay dégg buy jënd duñ jël ci moom dara waaye buy jaay nam jaay dañ ko xaaj fukki xaaj jël benn ba loolu mooy benn bi muy jëndee ci raison di jaayee ci benn raison ci réewu jullit ñi jamono jël dara waaye buy jaay la ñu jël mu jëndee fudul raison di jaayee ci raison comme que fudul raison lay jënd jamono bi muy jënd fukkeelu njëgu lam jënd la ñuy jël wala comme que ci raison lay jaay fukkeelu njëgu lam jaay duñ ko jël. yaa ngi xool lu mu wax moom lañ koy bàyyi wala boog muy jënd fu dul raison moom di jaayee ci beneen raison kooku jamono bu muy jënd danañ jël fukkeelu njëgalam jënd buy jaay it fukkeelu njëgalam jaay parce que laalu dara ci raison yaa mm-hmm. muy jënd fu dul raison moom di jaayee feneen fu dul raison bu muy jënd danañ jël jamono muy jaay danañ jël buy jënd fukkeelu njëgalam jënd. E, fukkeelu e, njëgu lam jën dañ koy xayma nag mu muy toll bu jaayee fukkeelu njëgu lam jaay maanaam koy xaaj fukki xaaj ñu jël benn balam jaay waaye lam jënd nag ñu xayma ko nu mu war a toll xaaj ko fukki xaaj jël benn ba dégg e, kon foofu ñetti xaajam foofu mu jëndee ci raison jaayee ci beneen raison bu dul raison ci réewu jullit yi su boobaa jamono bi muy jënd duñ jël dara buy jaay dañuy jël fukki mu njëkk mu jëndee fu resomam ci resomam jamono bi muy jënd dañuy xayma lam jënd nu toll ñu jël fukkeel ga lam jaay duñ ko jënd mu jëndee fu dul resomam jaayee feneen fu mu resomam bu muy jënd ak buy jaay yëpp danañ jël mu des yeneen ñaar mooy muy commercer ci resomam bi rek ci suuf resomam ba ci kaw maanaam génnul resom kooku duñ jël ci moom dara ndax moom génnul resom moom génnul reson balaa ñuy jël dara mooy mu toxalu dem ci beneen raison njaay gi jënd gi mu amal ko njëriñ dégg beneen bi ci topp mooy muy commerçant fu dul raison ci kaw ba suuf moom nekkul ci ñaari raison même benn raison rek kooku buy jënd rek la jël waaye buy jaay duñ jël dara ndax moom ci benn raison la nekk. dégg kon bu fekkee ci raison rek la duñ jël ci moom dara bu dee fulul raison la waaye génn ko kooku buy jënd danañ jël ci moom fukkee luñ xaymaab loolu mu jënd waaye bu jaayee duñ ci jël dara ndax moom ci benn raison la nekk yaa ngi dégg lool loolu lay wax ne danañ jël ci ñoom fukkee lu njëgu lañ jaay gis nu ko tënkee bu yaxtalafoo di la baagante nañ fi sanat ci at miraaran ay yoon di la ci ñëw ay yoon saa yoon wu ñu ñëw rek fukkeelu njëgu lañ jaay comme noonu ñu ko waxee woon rek jaay ma wuteeg nag Saafi ak benn yoon rek la jël ci ñoom ci mi kenn du jël ci ñoom mi ñaari yoon wala yoon bu ñëwee ay yoon benn yoon rek lañ ci jël loolu la xamaloon na yenn nañu ataama ñam ilaa makkata jëm makka. wal madina ak madina xaasatan dong <coughs> waxisa ñu jël min si ñoom nes fonsri genn wàllu fukkeel ba min saman yi ci njëgga suñ xenoo ñam jëm màkka ak madina ak dëkk yi nga xam ne ñoo jokk ci màkka ak madina dañ leen xooyee faral soo baa da ngay xool comme nuñ ko waxoon ci am rek ñu jël fukkeelu genn wàllu fukkeelu njëgg maanaam lañ jaay duñ jël fukk duñ ko xaaj fukki xaaj jël benn wala ñu koy xaaj xaaj jël genn wàll ndax dañoo bëgg ñu xeenu ay ñam yóbbu Makka ak Medina loolu dañ koy soxla tax duñ jël fukkeel dañ koy wàññi dégg kon daal comme daal bu dee fañ war a jël moom ñam la waxuma leneen matériel yooyu soxlawuñ ko matériel Makka ak fudul Makka lañ ci war a jël lañ jël fukkeelu njëkk waaye ñam kese laa wax saa yuñ ko jëndee màkk te war a jël ci jënd ga wala ñu war kii kon saa yuñ ko waree yóbbu màkk kon ñam saa yuñ ko war yóbbu màkk loolu yóbbu ga lañ wax waxuñ ñu génne ko fa sax yóbbu ko fa saa yuñ ko war a yóbbu màkk te ñu war see jël su boobaa duñ jël fukkeelu njëkk a genn wàllu fukkeel la ñu jël ndax bëgg ñu yóbbu foofu ñam tax na waxi nañ ñu ne ñoom genn wàllu fukkeelu min sama nii ci njëkk. <laughs> دعا وتوقظ الرجل من تجار الحربين تكما ساقر علي المصروف كلبا إلى أن ينزل لمن يواجه على أكثر تلوب من ذلك تلوب كو خمنا قرى موضوع سن ديغنت بي كوميرسا تبير ريو جولي ني دعنا نمائي كو غاران تموي كوميرسا بير ريو لم جاي لن كو يخاج فوكي خاج نجل بين بقى su fekkee imaam dafa wax ak ñoom lu ëpp loolu sax loolu lañu jël su ñooñu xare moo dox suñu diggante amul amul masla bu ñu waxanteeg lu ëpp xaaj ba sax lam jaay la imaam wax rek bu jaay loolu la ñuy jël ci moom kon koo xam ne xare moo dox suñu diggante jële imaam lam fasante moom koy ëpp na fukkeelu lañ jaay loolu la ñuy loolu la ñuy jël dégg nga bu fekkee ràññilewuñ dara nag waxuñ dara fukkeelu xaaj bi la ñuy jël moo koo xam ni mu ngi ci biir jullit ñi am jàmm di commerce moo yem dégg nga bu dee ràññil wuñ dara fukkeelu xaaj ba la ñuy jël dégg nga gii ma wax nag xeefeer rek lañ koy laaj kenn du ko laaj jullit li ñuy laaj jullit ñi ci ay galak di ko joxe dafa xaraam xaraam gu bon a bon boo ko daganalee sax di di far dégg nga waaw boo ko nangoo ba pare nag di ko laaj mooy nga yàlla yow mi ko jël war nañ laa yar mm, ba yu mel noonu dootoo ko defati kon garab kenn du ko laaj jullit waaye ab lañ koy lañ koy laaj dégg fi rikaas yi war na ci rikaas nga ne ko lan moo di rikaas mu ne woowu moom dafnul jaahiliyati mooy suul ak way réer ya lu ca war alxumus juróomeelu xaaj ba alaa man asaabu ci ku ko jot rikaas ki ko am moo xam gor la wala jaam la julit la wala xéewéer la ku am la wala ku ñàkk la ku bor la mat na nisaabam matul nisaab xaalis la wala marchandise la dégg pëdëm laam weñ gu ñuul la yooyu yëpp ci yam yooyu yëpp rikaas la boo ko fekkee ci ab barab daal danga koy xaaj juróomi xaaj su ko defee benn bi ñu jox ko imaam dégg eh, rikaas nag imaam du ci àtte lu ko lu ko neex comme lu ñu waxoon ci mbell déedéet boo xaajee juróomi xaaj joxe benn ba li des yow mi am rikaas bi yaa ko moom moo xam jaam la wala xeefeer li des yaa ko moom waaye nag ci sartaan nga fekk ko suuf soo xam ne kenn moomu ko waaw ni ki suuf yi àll yi nga xam ni kenn moomu ko boo ko fekkee suuf soo xam ne nag daa am ko ko moom la fa nekk ka moom suuf sa moo ko moom est-ce que ne suuf su moom lañ koy jox li mu wax na nag rikaas mooy suulu wéy yi jëru takk ne loo fekk ci kaw suuf rek tamut benn mandarga bi war ne jullite ko moom wala xéeféer sàngam boo xam ne am nañ ko lëre moo ko moom xéeféer boo xam ne xare moo dox suñu diggante àllam boo ko jekkoo da nga yóbbu ndax kenn du ko may doole waaye xéeféer boo xam ni xare doxul suñu diggante am nañ jàmm wala jullit xamul benn mandarga bi war ne moo ko moom loolu ci rikaas la bokk kon du luñ suul rek même loo fekk foofu waxoon naa la nag ne moo xam madda nisaab ba mëtt nisaab xaalis laam marchandise laam pëdëm laam yëpp rikaas lañ koy tuddee kon daanaka moom for la rek for goo xam ne amul benn màndarga buy wane ne diwa ko moom parce que fi nga ko faree du suufu kenn du suufu kenn suuf soos ñoo koy moom jàng kon rikaas daal mooy alalu jaahil yi rek alal joo xam ne xamoo ko ko moom euh, fa nga ko foree it kenn waru ko fa moom su boobaa kooku dañ koy xaaj juróomi xaaj benn bi ñu jox imaam ñeenti des yow mi ko foree yaa ko moom dégg li imaam jël euh, daf ko war a def ci maslaay jullit ñi te it imaam bu maandu nga ko war a jox su fekkee amoo imaam bu maandu yow juróomeelu xaaj boobu jël ko nga sarax ko miskin waaye bu ko jox imaam boobu mu di ko yàq tarikaas bi it bu dee avant nga ci jot da nga cee fere alal ju bëri ah su boobaa azaka rek nga ci génne maanaam boobaa dafay mel ni azaka rek dégg nga waaye dootoo génnee ci juróomeelu xaaj bi di ko joxe maanaam su fekkee da nga cee fere alal gas door koo génne wala yéem noonu loolu duñ ko tuddee rikaas dañuy xool sartay asaka yi bu ci dajee nga génn ci asaka mu mën nisaab yow nga nekk war a jox asaka bu dul loolu doo génn asaka safar xam nga rikaas moom mën na nisaab mu motu nisaab waaye bu fekkee da nga cee fere alal ju bëree bëri bëri ba door see jot day sartay asaka dafay dajee ci yow nga door see génne asaka bu loolu doo si génne asaka bu dee nag am na coono waaye yaa ko liggéeyal sa bopp wala say jaam hmm? dégg nga hmm. mu tuddati dégg nga su boobaa rikaas la rek waaye parce que defoo ci dara fayoo ci boo ci fayee ku ci liggéey daal su boobaa dootoo ko génne ci rikaas asaka nga ciy génne dégg su fekkee dangaa fekk alal jooju ci suuf ñoo xam ne ay xéeféer la ñuy am ñoom jàmm moo xam ñoom ñoo ko fa denc wala keneen na ko fa denc ah ñooñu noonu ñoo am ñoom jàmm xéwoon ak ñoom ñoo moom alal jooju bu fekkee kenn ci ñooñu moo ko fekk ci eh, këram moom rek moo koy jël. dégg nga moom moo koy jël bu fekkee ki ko fekk foofu nag bokkut ci ñoom du ko sañ jël parce que ñi ay xéewal lañu ñu xéewanoo kon ñoom ñoo la nekk seen suuf daa <coughs> may dégg soo demoon ci géej fekk fa mu sànni ay wurus lu ulu ak mbir yu seer te amoo benn màndarga bu wane jullit ko moom wala ab xéewal bu yam ak jàmm yow mi fekk géej gi sànni loolu yaay jël lépp doo ko def sa juróomi xaaj di jox benn bi lépp ngay jël far waaye xel loolu kon loolu bokkut ci kaas googu wax bu ko mbooloo gisandooroon wurus bi sànni géej gi sànni wurus ko ci njëkka a jot rek moo ko moom nekkut ku ko njëkk a gis ni ngi ku gis rëbb ne rëbb waa nga ne leen nit ñi daw dàq ko ka njëkk a jàpp rëbb ba rek moo ko moom paaka ka njëkk gis ah bu fekkee lii nag alal la joo xam ne nii jullite ko ba ci ab àll parce que mënatul koo toppatoo ni ngi ku dem ci géej bagage yi ko mu far ko fa sànni yow nga jël ko fere ya nga ca def ak coono ba nga ci daj loolu lañ la war a delloo waaye loolu moom comme jàmbur la da ngaa war a delloo alalu jàmbur dégg nga da waaye coono ya nga ci daj da koy def nit bu sànni woon alalam ci teen yow nga dugg génnee ko. su boobaa laa war a fay coonaam dugg nga dugg génnee ko soo ko bañee joxe alal jooj nag na ko maa ko dugg génnee ko sànniwaat ko ci teen bi soo ko sànniwaatee ci teen bi islam daf nga duggaat ci bi génne ko dañ la fay nag coonaam dugg ci teen bi waaye comme que alal jàmbur la alal waroo koo sànq tamit dañ ko war a toppatoo comme que xas na génn yow nga sànniwaat ko ci teen bi force yaa war a duggaat génnewaat ko boo duggaatul génn ko nga fay alal ji rek. boo ko génnee ñu fay li nga xam ne moom moo war a moo aju ci wàllu rikaas ak yenn alal yi in uridu ila islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi